dal leen ak jàmm fii ci Dakar Net am internetu Dakar Net nuyu nañu leen ñu daal di àddu wax ci actrice bii di Marichou ginnaaw ay rumeur yi nga xamante ni rek doon nañ ko dégg ci moom doon wax ni sax moom mi di Marichou dafa am doom bu toll ci deux mois te baay ba newul woon kenn ku du Rijal bu infidèle wala sax Bilil bu Pod et Marichou ñu gën koo xam ci turu Khadim Sène te jamono jooju sax ki nga xamante ni mooy Khadim Sène génnoon na doon àddu di ci mbir moomale waaye boobaag léegi nag ki nga xamante ni mooy ndeyu mbi léegi di Marichou kenn dégg gu ko woon jamono ji ñu toll nii nag moom Marichou ñëwaat na waaye nag na mu ñëwaatee ak doole di ginnaaw bi nga xamante ni rek mi ngi doon def ay shooting di wane ay photo yu taaro taaro à travers les réseaux sociaux waaye nag jamono ji nga xamante ni rek ñu ngi wax ak yéen moom mi di Marichou dafa daal di publier rek benn photo boo xamante ni mi ngi toog ci kaw lal dal di sol benn robe de mariée dal di muuru comme ni ko marie yi di defee rek mu daal di choqué public bi ñëpp di laaj ndax Marichou moomule dafa doon marié wu wala rek dafa doon def benn shooting ak nu ci doon rek seen site bu mag bi bile di Dakarnet dina leen toppal boobule information ba mu leer di leen wax ngeen abonné solo noppee bés cloche de notification bi ngir ngeen di mën a am suñuy vidéo ci daar daar gi